mbokku Sénégal ñi ñuy topp ci campagne bu am solo bi nga xamante ni ñoo ngi koy def di daje ak euh, sénégalais yi di waxtaan ak ñoom ci yéene bi nga xamante ni am nañ ko ñun nag ci fanu campagne bi dem nañu daje ak baykat yi ndax bu ñu tuddee waa Déni Malick xëy na mu doy sëkk ci misaal ci baykat yi coono bu ñu sonn tamit ak ñàkk bu ñàkk suuf ñu jël seen suuf loolu nag méngoowul ak réew moo xamante ni dafa bëgg am autosuffisance alimentaire maanaam dafa bëgg lépp lu muy dundee mu mën ko bàyyil boppam loolu nag mu amee foofu su ma ko tuddee tudd naa fépp ci biir réew mi ñi nga xamante ni bëgg nañu bay te amuñu suuf bu ngeen ñu wóoloo ci 24 mars 2024 loolu dañuy féete ginnaaw dinañ jël seen suuf delloo leen ko ndax réew mi ñu bëgg a jiite dañoo bëgg mu nekk réew mu moom boppam rawatina ci wàllu euh, li ñuy dundee ñu mën ko di ko bayal suñu bopp ba ñu fa jógee dem nañ seeraas képp koo xamante ni day yëngu ci wàllu càmm boo fa ñëwee loolu yëpp dafay daje waaye li ñu gën a yéem keroog melokaan ba ñu nekkee ci wàllu ñàkk set ci wàllu ñàkk sécurité ci wàllu ñàkk aménagement ci seen barab daanaka jéggi na dayoo loolu nag ñu koy naqarlu ba engagement yi ñu fa jël bokk na ci loolu dinañu féete ginnaaw dinañ leen dimbali tamit ci wàllu euh, taxawaay état dina taxaw ci seen wet ba am ay champion dans le domaine de l'élevage ba nga xamante ni bu tabaski jotee wala korite jot wala pak jot kenn dootul tijji sunu frontières yi ngir yeneen réew yi mën ñoo indil loo xamante loolu la ñu mën a dundee ba ñu fa jógee it daje ak nappkat yi la coalition nationale pour un pêche durable mu nekkoon jotaay bu ama am solo foofu tamit bañ fa demee lañ ñu dégtal ay kilifa yoo xam dañoo jóg ngir taxawu géej gi saytu ko sàmm ko ngir pas pour ñoom mais pour les générations avenir venir méngoo loolu ñun tamit ak li nga xamante ni moo dugal suñu kuréel gi ci politique muy les serviteurs boo bëggee autosuffisance alimentaire faaw sa géej nga mën ko téel sa bopp muumal ko sa bopp te géej gi tey ñëpp xam nañ ne moomatuñu ko donc euh, pêche bi ñun li nga xamante ni xaatim nañ ko ci ay contrat ñu fekk ko fi bu ñu ñëwee loolu yëpp dañ koy saytuwaat dëgëralaat ko soppiwaat ko daal di xool nan la ñuy def ba nga xamante ni nappkatu Sénégal bi dina ci gis boppam ba dootul soxla di jël ay nit di leen ci dugal naan di leen yóbbu Espagne wala di leen yóbbu feneen waaye di ci gis boppam. ba ñu fa jógee nag daal di rencontrer le secteur informel mooy ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu jënd ak jaay ah muy les mécaniciens muy ñi nga xam ñooy les transporteurs ndaw yi nga xam dañuy jóge fii bàyyeekoo fii taw fii ba Mali ba Burkina Faso di yóbbu alal yu bari te lañ leen di fay néew lool ñuy jël ay risques yu bari ñooñu tamit ñun dañu jël responsabilité ngir taxawu leen. donc noonu la ñu wëree Sénégal ci fan yi nga xamante ni mooy juróom-ñaari fan yi euh, démb ña nga woon Bakke. war a jógewaat fii tamit dem Thiès dem saalum wala dem Saint-Louis. war a egg ci barab yëpp saafonte ak ñoom. loolu mooy xayma bu njëkk ci juróom-ñaari fan yi nga xamante ni am nañ ko ñu ciy gërëm nag sénégalais yëpp di gërëm serviteurs yi. ñu am taxawaay bu am solo bu dëgër. waaye wéyal leen ko Sénégal yéen la bëgg te Sénégal ñun lay dénk réew mi ci 24 mars 2024 jërë ngeen jëf.